naaw bu ñu tëjee daara yu kawe yi ndongo yu nekk ci école yu digg doom yi ñoo jàngiwut tey. man tey damaa ñëw pour jàng lenn ma sama morom yi ne ma te tey jànguñu. jàngalekat yu nekk ci kuréel bu ëmb waa SAES ak CUSEMS ñoo banque tey seen i yoxo mu di ab mot d'ordre bu ñu bëre si ñoom jëfe téeméer boo jël juróom-ñett fukki ñëwuñu donc ça veut que ne vraiment euh, le taux est vraiment fort ça taux bi na tuuti parce que téeméer boo jël juróom-ñett fukki yi ñëwuñu. gannaaw bu yile syndicaliste banqué seen loxo bañ ne duñ jàngale ña farewul ci alliance boobu ñoo desoon ci biir l'école yi. alliance CUSEMS SAEMS ñoo décrété te fii collègues yi dafa am ñu bëri ñoo xam ne nii dañu bokk ci yeneen syndicats yi. am na yeneen syndicats yoo xam ne bëgguma lim pour am na yeneen syndicats yoo xam ne nii dañ fi nekk muy ay syndicats classiques ak syndicats nouvellement créés et donc bu alliance bi décrété koo xam ne nii bokkul SAEMS euh, e bokkul CUSEMS soo ko neexee. constitution may na ko yoon may na ko bañ ñu dem grève. ñu nekk ci ay waxtu yi nga xam ne ni école sénégalaise mu ngi ciy jànkonteel ay jafe yu mag rawatina accord yi nga xam ne ni nguurum Sénégal signé woon na ko ak jàngalekat yi ndongo yi am ci tànge lool ci at mi. année dernière bi dafa metti woon jàngaluñu mbag bi metti na. kon cette année ci dañuy ñaan rek même bu dee dee am élection ñu def ko ci njekk ak teranga léegi su ko mu jeex ci jàmm ñu reprendre cours ci jàmm. ci fàttali yi la jàngalekat dañuy sàkku rek ci ngurum Sénégal mu mun a jëfe accord yi nga xam ne ni moom lañ si woon bàyyi lu muy xoxotal ay ñoñam teg ci jàngalekat ak ndongo yu nekk ci prison ci lu dëppoowul ak yoon ñu mën leen bàyyi ñu delluwaat seen kër